voilà monsieur le préfet tey ngeen doon def visite ci euh, bërëb yi nga xam ne dafa gën a bëri ndox ci Touba di taa euh, ndax mën nga dellu soit ci visite bi. maa ngi leen di di gërëm donc tey dañu jógoon pour euh, def tournée xam nga saa yu ñuy dëgmal nawet genre tournée yu mel nii dañ koy def pour saytu fi nga xam ne foofu nañuy amee ay jafe-jafe. ci wàllu inondation euh, li ndu di wax les points bas def nañu tuuru euh, Touba Mosquée commune de Touba Mosquée won nañ ñu euh, fu ne fan la jafe-jafe yi di di nekke am na ay solution saafara yoo xam ne yëkkati nañ ko mu nekk saafara boo xam ne dafa jam ak saafara boo xam ne si liggéey bu bu gën a yaatu nañ ko mën a mën a mën a tege te loolu biñ ko biñ ko xoolee ba pare euh, dafa nekk euh, lu am solo ndax euh, xam ngeen président si boppam yàggul moom moo laaj dëkk yëpp ñu jublu si wàllu inondation yi donc liggéey bi ñu doon def nii tey dafa nekk liggéey saytu boo xam ne bu ñu demee dinañ ko tëggaat yónnee ko gouverneur nga xam ne gouverneur da koy dugal ci plan régional bi nga xam ne moom nañuy yénnee Dakar ñu xam li nga xam ne soxla nañ ko fii ci Touba par exemple te mu war a nekk jumtukaay pour que bu ndox mi demee ba ñuy sonal mu ñu am loo xam ne dinañ ko mën a saafara li nga xam ne nag dafa war a bokk ci plan d'urgence bi nga xam ne gouvernement bi buggoon na ko depuis daaw ñu yëkkatiwaat ko li nga xam ne état bi mën na ko ci def état bi àla kulial dina ci jóg li nga xam ne aussi dafa dafay xaar biir ndax euh, xam nga jamono bu nekk ak euh, ni priorité di nekkee bu ko defee loolu aussi ñu egge ko euh, kilifa yi alors jafe-jafe yi ñu yi ñu yi ñu seetlu mooy que euh, Touba saytu woon nañu ne am na ay euh, ay point ay béréb yoo xam ne euh, mën nañu jàpp ay at nii saa yu tawee day taa te solution bi fay nekk rek mooy solution wu pompage maanaam woowaa sapeur pompier ak commune de de Touba Mosquée ak xëy na ndigalu sëñ bi loo xam ne ñeneen ak waa ONAS service technique yi waa ONAS yenn saa yi sax euh, murit yi Baay Faal yi ñoom ñëpp dugal seen loxo ñu jéem a xool nan na ñuy trouver solution mais am na leneen loo xam ne dañu xool ne réseau bi si boppam réseau Touba si boppam moom nañu war a xoolaat naka nañ koy euh, tëggaate mu nekk mu nekk plan d'urgence parce que bu ñu nee réseau bu am problème non réseau bu matul la du question réseau bi dafa am problème mais liggéey bi dafa matul il faut que liggéey bi ñu eggale ko loolu moom mooy plan d'urgence plan d'urgence boobu nag am na luñ si tàmbali mais am na loo xam ne tàmbaleeguñ ko loolu nañu naan bu ñu toogaatee il faut ñu xool par rapport ak document bi ñu tëg doon fan la si état bi toll si wàllu liggéey at li nga xam ne euh, des na état bi war si intervenir loolu du léegi nii nañ koy waxee il faut ñu toogaat ba def le point ndax visite de terrain rek nañu nekkoon pour xool observer bu ko defee bu ñu toogee dinañ xam yan matuwaay nañu war a mën a jël si par rapport ak euh, des li des si liggéey nawet bi léegi tàmbali na de yéex ngeen jël ay matuwaay. naturellement euh, yéex nañu jël euh, ay ay matuwaay parce que xam nga ne jamono ji ñu toll nii am na benn priorité bu ñu bu ñu jël jël suñu suñu suñu wax waxtu yëpp muy mbas mi si la ñu nekkoon. mais heure bi waroon na fekk souvent mois de mai wala mois avril ñu jóg def tournée hivernale bi waaye li si am solo rek mooy def ko def ko xool yan matuwaay ñoo jàmp te matuwaay yi jàmp ñun gis nañu ne si lu bëri dispositif de pompage maanaam jël euh, moto pompe yi nga xam ne war na te ànd nañoo ak sapeur fi nga xam ne ñoom daan nañ fa taxaw teg fa moto pompe euh, dinañ ko dinañ ko def fi nga xam ne yaakaar nañu ne également war nañu mën a améliorer au lieu ñu utiliser carburant bi ñu utiliser électricité am nañu ak Senelec bu ñu fa mënee def descente d' électricité ñu def ko bu ko defee loolu gën a mën a mën a mën a ñol mais li am solo am solo te ñu war ko jàpp li am solo am solo te ñu war ko jàpp mooy programme d' urgence d' bi programme d' boobu tant que matul du ñu jóg si jafe-jafe euh, yi nga xam ne dinañ ko am saa yu tawee fii si Touba.